alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin bashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu waay mën a nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu ci nuyug lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu uh, gannaaw loolu ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp gannaaw bu ñu ndokkelee suñ bopp ci xew-xew bi nga xamne xew xew l'islam la nga xamne sunna lon ko sayyidi wa al marhum Cheikh mohammed Nadir Ibrahim Niass wax deug yàlla jaami yàlla di bayeko fu nek ci adina di ñëw uy si ab otem ñaar ñi nga xamne nak tok nañ ñuy kenn ci kër Cheikh mohammed Nadir insha allah dina leen jox ñom ñu présenté wu su ko defé insha allah la ci ñu cey toftal rek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 rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ay mas bi hadal mahdari wa tafti fi bi nasr tafti wa rahmatullahi bu baax di leen ziara di bu rëy ci teew bi teewaat fii ci Nema Nazir fii ci euh, Gambia am kóllëre bu yàgg ak Nema ci boppam am kóllëre bu yàgg ak sëriñ bi Cheikh Mamadou Nazir nga xam ne moo suñu sëriñ moom moo ñu yaral boppam moo ñu tarbiya man man maa ngi tudd Cheikh Omar Diop euh, dëkk Sénégal waaye nekk taalibe ci Cheikh Mahamad Nazir mu yaral ma boppam tarbiyaal ma boppam fii ci Néma la tarbiya euh, bokk ci njaboot gi. di yëngatu ci xadara bi di yëngatu ci fayda bi. Mhm. nekk Dakar toog ak sama xarit sama mbokku taalibe Cheikh Aziz Ndiaye. xamna momit dina dina présenter bopam inshallah ba am yeneen i laaj ci toftalo ma sha allah Cheikh Oumar. ñu ngi lay jërëjëfal bu baax a baax baax ci tontu bi waye tamit ci lu ñu jotta léral leeral. nañ ci trop ma sha allah. xamna ne ci ki nga xamne mom lañuy la ñuy jëm. macha allah xaw nga ñëw wax leen ci moom. waaye Cheikh Cheikh bi Cheikh Abdoul Aziz. yow it gannaaw bu ñu la nuyoo. tatagal la ziyaara la. ñu eh, ngi lay wax incha allah nga présenter sa bop incha allah. waaw alhamdulilah ala sayyidina xalqillah <clears throat> rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi sant yalla ñu ci yonenti bi di ñaan yàlla nañu yalla fayal mawlana cheikh Ibrahim Niass ndax nah, lii yeb de nga min xasanaati yi mhm. waaw nah, mooy rogalaat ba tay mhm. ñun nak ñu am suñu cër mhm. ci buntu ko xamantene sëriñam a ko bëggoon mooy mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass mm-hmm. daan ko wax lu ñu daan fàttali daan mm-hmm. bàyyi daan nañu wax ne Naziru fekk yaa ngi jaabante sama diggante école bi ak sama jumaa ji lu toq sa lu toq sa xol yàlla def loolu képp ku ko jege woon xam na ne borom ijaaba xam na ne waxi baayam ci la dox ba génn àdduna bokk na ci yar gi mu yar bëriwut lu ubbi téere de mais moom moo doon jëmmi téere bi nga xamante ne moom la daan yare man nag maa ngi tudd Abdoul Aziz Ndiaye sunu njàng alquran sunu njàng euh, mahat sunu tarbiya sunu ijaza sunu bëgg Cheikh ma euh, Cheikh Ibrahim Niass sunu sitqook sunu mahabba sunuy himma sunuy xarakaat ku ko gis lépp muy Cheikh Mouhamad radiyallahu taala moom mooy mooy def të mooy def tasaruf mhm. mooy def te tëjëli mhm. dégg nga ci njaboot gi ba tey mhm. nga xamante ne kon suñu présenté suñu bopp mënuñoo présenté sunu bopp lu ëpp ne euh, taalibe Cheikh Mouhamad Nazir te mënuñoo am tamit dégg nga grade bu ëpp boobu mën naa wax ne lu ñu gis si ñun rek dégg nga mëdët la goo xamante ne mu ngi jóge ci moom. waaw ba allah euh, Cheikh Aziz Ndiaye ñu ngi lay jërëjëfal bu baax ci laa ci am solo tontu yi am solo yi nga xam ne moom nga tontu waaye tamit leeral ko wax dëgg yàlla euh, neex na dégg trop macha allah. waaye itam ñu ngi leen di yàlla tawfiq bi cheikh rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne ki ngeen uy xam ngeen ko mm-hmm. incha allahu soxla nañ lu mu gàtt gàtt rek ngeen wax ñu kan mooy Cheikh Mouhamed Nazir ndax kat dafa jot nit ñi xam xaqiqatan man huwa Cheikh Mouhamed Nazir ala jamii funun dëgg-dëgg loolu incha allahu ñu ngi koy laaj. alhamdulilah Cheikh Mouhamed Nazir. bokk na ci liñ koy gën a xàmmee. mooy ci bokk na ci mazahir Cheikh Ibrahim Niass. ndax. ku ko xool sa xool day delluwaat si Ibrahima ci melokaanu jëfam ci melokaanu xam-xamam ak ci melokaanu jëmmam eh, moom moo nekkoon ñaareelu si Ibrahima bi mu génnee àddina la ñu a xam ne si Ibrahima génn àddina ndax ku ko mosaa gis sa xel delluwaat si Ibrahima ci melo jëmmam ci jëfam ba nuyoo Niama Nazir boo xoolee liggéey bi mu fi liggéey yoo xam ne doomu aadama li ëpp solo ci li ñu war a fàttaliku ci jëfam li ñuy fàttaliku ci moom jëfam la te jëf yi gën a kawee bokk na ci jëf yi nga xam ne nit ñi dañ ci mën a jumoo pour mën a defar seen àddina te lim liggéey Cheikh Ibrahim dafa nekk lu leer loo xam ne ku ko gis rek mën ci ndax moom doomi Cheikh Ibrahim la ci melo ak ci deret ku ko xool xam ko daan na ma wax man nga bàyyi waxoon na ko ne doom bu nuroo ndeyam setal na euh, bu nuroo baayam setal na ndeyam te ku xool jëmmam da nga xam ne kii Cheikh Ibrahim mooy baayam ci jikkoom ci jëfam ci waxam ci léppam boo xoolee neema gi ni mu ko liggéeyee rek da ngay xam ne moom bëggoon na Cheikh Ibrahim mooy ñaareelu ñaareelu Madina ci kaw suuf ni Cheikh Ibrahim liggéeyee Madina Madina boo ñëwee neema loo ma fi fekk kër Cheikh Ibrahim bayaal bi ñuy gàmmoo jumaa ji boo ñëwee neema loolu nga fi fekk kër Cheikh Nazir bayaal bi eh, ak ak jumaa ji jumaa ji bi ñu koy liggéey ñun bokkoon nañ ci ñu ko doon liggéey te moo ko fi taxawal. mu nekk jumaa joo xam ne bokk na si jumaa yi gën a rafet fii ci Gambia. loolu liggéey la boo xam ne nekkut loo xam ne wax rek la. ndax lislaam dafa nekk diina joo xam ne. diina wax la ak jëf. te jëf lañ gën a considéré ko wax. comme Cheikh Nazir liggéeyam ci umma bi daan na wax ne. balaa moo génn àddina. dina fexe ba kaw suuf mu fexe feesal fi ay jàkka ak ay jumaa. ak école. doomi doomi Sénégal yi mokkal Alxuraan. loxatul arabiya bi nga xam ne moo gën a tumuranke ñi ko gën a dégg ci Sénégal soo leen xoolee si loxo Cheikh Nazir lañ génnee alquraanu karim bi nga xam ne moom la ñuy jàng ci tajwid bi nga xam ne lu tumuranke la woon ci Afrique boo xoolee ñi ci gën a ràññeeku ci àddina te nekk ay africain ci loxo Cheikh Nazir lañ génnee liggéey la boo xam ne du fay ba ilaa yawmal qiyaamati liggéeyam yàlla moo ko kaweel te yàlla moo ko sellal lan moo ko may loolu mooy fekk gën tegoon tànkam ci ah, fi ko bàyyi bàyyi rëddalun li ko bàyyi santa li Cheikh Aziz wax léegi ne ko fekk yaa ngi bàyyigaan si si diggante jumaa ji ak école bi rek lépp lu toq sa xol yàlla dina ko matal mm-hmm. loolu Cheikh Aziz mooy man maa ngi ko déggee ci moom mm-hmm. te loolu euh, ku ko gis si Cheikh Nazir mm-hmm. da ngay xam ne wax boobu dëppoo na ak Cheikh Nazir bu daan génn Madina faw mu dem ci xabru bi tàggu sa Ibrahim soog a génn dundam ak deem xàmmeewu ko woon dafa gisoon na rek mu ngi ànd ak bàyyi daa iman lépp lu mu daan def da ci daan sóor na bàyyi ci wetam daan na bëri li muy wax bëgguma dajeeg sama bàyyi di sëgg kon bàyyi bàyyi nawleem la woon kon da ngay gis ne nit ki da nga àgg ci marché boo xam ne da ngay dem ba sa sëriñ sax sa nawle lay nekk ndax day mujj nekk sa royuwaay day mujj nekk sa sa sa xooluwaay mm-hmm. bàyyi dafa nekkoon xoolukaayam dafa bëggoon bàyyi dugg boo xam ne ku nekk ak moom rek foo jaar di bëgg a bàyyi. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku. Mm-hmm. man barke. Mm-hmm. ci mudir laa njëkk a xàmmee luy barke. nekk gi ma nekkoon ak moom ci laa dem ba xam ne nekk barke bu nekkee ci nit. ci melloo wii lañ koy xàmmee ci mudir laa ko xàmmee. jëmmi barke la woon boo xam ne yàlla mayoon na ko tawfeex. yàlla boole woon na ko barke. ku jóg jóg moom barke nga. ni ma ma la ma gën a yéem. si Cheikh Mouhamad Nazir. mooy ñi mu yar. macha allah gisuma ci kenn koo xam na. maanaam ñi tekki nañ. alhamdulilah te ki ci gën a ràññeeku. Mm-hmm. ku ci gën a bëgg ràññeeku. Mm-hmm. mooy ki delloo euh, naar ba xorom sax wala ki delloo buum sa mooy mooy. dëgg ku ko def rek da gis sa mbir day ubbeeku. Mm-hmm. sa mbir day yokk da loolu jox soxlawu laajte. mu xaddami Dakar yi nga xam ne ñoo fa nekk. ñi ci gën a ràññeeku yëpp jaar nañ ci loxo seen nasi. kon si amaama nasi yàlla defoon na ci moom barke. xam ne taalibe mi ak taalibe ñeneen ñi te ku ko jàpp ak ku ko bàyyi xoolu ko. moom li mu xool. mooy ñëpp njabooti bàyyi lañ. ñëpp ay taalibe bàyyi lañ. ñëpp ñoo bokk ñoo bokk bàyyi. moo tax gis nga soo xoolee ñu bari tey fi ne nii. ñu bëri am na ñoo xam ne am nañ alaaka ak Cheikh Nazir. mais alaaka boobu mu amoon ak ñu Cheikh boo ko xoolee. doo doo doo xàmmee kii. Cheikh Nazir moo ko yar. wala kaa Cheikh Nazir yaru ko. waaye ñi gën a ràññeeku ci Dakar. boo xoolee ku mel ni si Aziz Ndiaye. Mm-hmm. tey ci Dakar. Mm-hmm. Euh, kenn gënu ko faa ràññeeku. Mm-hmm. liggéey Cheikh Nazir. te loolu dégg nga léegi moom mu wax ko. doy na rek exemple. man moom du ma du ma présenté ma bopp ndax man waaye kii. man dama koy puukaroo dama koy tiitaroo. su ngeen bëggee xam liggéey Cheikh Nazir. xool leen Cheikh Aziz Ndiaye. te loolu barke la te loolu wax dëgg bisimilah njabootu ci yar bi leen Cheikh yar soo xoolee eh, doo leen gis ci xëccoo dara ay mbiri àddina lu ko waral mooy seen bàyyi fi mu tegoon tànkam la mooy alxuraan liggéeyal Cheikh Ibrahim dëddu àddina jublu yàlla tey ci loolu la leen yar ci melo woowu la leen yar moo tax nga gis ñu nekk ñoo xam ne ñu gàttañu leen ci mbiri xëccoo àddina waaye nag macha allah boo ñëwee da nga fekk ñu nekk borom xam-xam doo nekk boo ñëwee da nga fekk ñu nekk ay borom alquran yoo xam ne wattu nañ alquran te mokkal nañ ko te xam nañ ko te loolu mooy tiitar kon nag ñun man du ma mën lu ñaanal leen yàlla euh, yàlla gën na la dëgëral yàlla gën na la sàmm li ñu mën a wax yëpp nag mm-hmm. mënuñ koo wax waaye kii moom moo ñu gën moo ñu gën a ci waxtaan ci loolu. <laughs> macha allah euh, Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Omar. Euh. Euh, dégg nañ ñi nga xam ne moom nga ñu wax. ci Cheikh Mouhamed Nadir. ndax wax dëgg yàlla jamono ji nekk rek. Mm. kooku dañ nit ñi dañu war di ko waxtaanee. Mm-hmm. waaw nit ñi dañ war di ko waxtaanee. dundam lépp njëriñ la. amul dara loo xam ne rek moo ci nekk asar. dundam lépp njëriñ la. xamna Cheikh abdul Aziz fi may ñëwee rek moy li nga xamné moy Cheikh mohammed Nadir ak itti ak Cheikh mohammed Nadir ak gor gor dem julit ñu bax Cheikh abdul Aziz loolu lañ lay laaj Cheikh mohammed Nadir ak itte Cheikh mohammed Nadir ak gor gor lu def ci doomu julit ñi xam-xam wa tamit mu ñor ko loolu inshallah ñu la koy ñu la koy laaj inshallah alhamdullilah bala may wax sax. xaal bi daf may fàttali. la bàyyi waxoon ne isal kiraamu isa ma aysaru zakaru man kaana yaxlufuhum fi manzilil xashini ñu tedd ñu baax ñi suñu demee ba jàppandal dab leen seen dund ba ñuy nekk ci kër xat-xat daan ut te amuñu te leen dimbali woon ñu am ko faw ñu koy fàttali kon bés bi képp koo xamante ne dégg nga min ahbaabi Cheikh Mouhamad Nazir dégg nga war ngaa teew بالذات war ngaa teew. waaye xaaliyan den xissiyan. maanawiyan. da nga war a teew. macha allah ndax teg ko ci rek. isal kiraamu ida ma aysaru dakaru. man kaana yaxlufuhum fi manzilil xasini. su fekkee ne ci xawmul kiraam. ci nga bokk. te yaakaar naa képp kuy taalibe bàyyi. ci xawmul kiraam boobu la bokk. kon nag bés bi man Cheikh Omar di wax léegi. ne ma maa gën a jekku déedéet hmm. sëriñ bi kenn ku ci nekk dafa seq ak yow hmm. yoo xam ne yow hmm. yaa ko moom ci moom te du denc ci yow ba pencam yàlla dégg ndax li ma laaj kaana saaxibul himmat wal xaal sëriñ bi dafa woon amoon itte te melox Cheikh Ibrahima Niass rek laa doon gis si moom li magam bi waxoon ne ko himmatuhu تنهر الحال من اراد الاله فاصحبه ان رمت المراد لولا محمد شيخ محمد زينب وخون ركم من خول لين سيرن بي اتيم تنهر الحال من اراد الاله داي اي حالو كيب كو بوغو يالا فاصحبه دمال نغا فريكانتي كو اندك موم ان رمت المراد بو فكيني با نغا جات سا تياكوتيل سيرن بي تاميت حالما غي دوخ سي نيون باتاي ndax himam dañ ci bi Cheikh Omar di wax léegi maa ngi fàttaliku. dama koy wax nii ñoom xaadim duural ñi ma nekkal yëpp bu may dox ci dëkk bi dama naan damay toog rek dox ci kaw tali bi Dakar ba Thiaré ma fàttaliku ci saa si dars bu ma sëriñ bi joxoon ne. booy dox ci kaw tali. Mm-hmm. na nga dox sens bi jàkkaarloog oto yi. Mm-hmm. pour bu oto bi ca sawaay bu ne cërëb nga ne cërëb pam <laughs> mu ne waaye dox wane wane ginnaaw boo ñëw rek ne la teel nga jaaxal. xoolal yooyu voilà dars mm-hmm. ah. toogal rek lu mu gàtt gàtt dana la wax loo xamante ne euh. dina régler sa nite gi te loolu mu ngi des si ñun ba tey moo tax ma ne xis euh, yan mm-hmm. ñun dañ ko yëg mënut a mm-hmm. faar ci ñun mm-hmm. sëriñ bi euh, walahu sàkk fii kulli maa yaamuru bi shaariu lépp loo xamante ne diine yàlla gii wala tariqa cheikh bii mën manhaju cheikh Ibrahim Niass mudir daawu ko digle toog waaw wala hu sabqu fi kulli maa yaamuru bihi saa'iru loolu ñu ngi ko koy seedeel. Hmm. lépp lu mës a jiite nit di digal nit rek sëriñ bi moo ci fekk. Hmm. di nga ko ci fekk. Hmm. waaw ñun ñaar rek la doon jotee képp ku nekk kër ga. mooy jàngi woo julli ji woo. wasifa woo ñett yooyu. boo koy boo koy réglé. yoonam newatul ci leneen. man mii moo ma mës a wax ne ma man football rek laa doon def. dafa doon toog di ñu seetaan ma ñëw di ko bës si tànki ay 6 heures 7 heures ma dama doon lekk xaalis mu ne ma yow leneen lañ lay doyee mm-hmm. boobu xaw moon lan la parce que lii yëpp ñu nekk mu suñ doon suñ bëgg-bëgg ñun ci leneen lañ xalaatoon ndekete sëriñ bi ku jaar ci loxoom rek mm-hmm. sëriñ ngay mujj doon bu la neexee ak bu la neexee parce que loolu la doon def ci nit ñi moom du la jàngal bàyyi la mais day def ci yow loo xamante ne doo ko rëcc ba pencam yàlla mm-hmm. moo tax nag benn bés wax nañu ko direct mu ne yéen ñu ndaw ñi yéenay sama ndaw billaay wallaay tallaay jour boobu koy fàttaliku ñu ngi ci internat Ahmed Sey fekke woon na ko yaakaar naa ak xaw ma lan bien ñun ñu fa nekkoon te ma kalitu jabaru maam alaaji mhm. dégg nga bi nekk euh, xatar yi fa leen Dubaay yaakaar naa maam mhm. alaaji maa jabaram ñoo tarbiyandoo ak euh, Dieng ak ñoom Cheikh Nazir ak yooyu mhm. waaye lu lay won ne sëriñ bi itteem bu doon julli fajar sax léegoo-léeg da doon jóge foofu yee suñu école ànd ak ñun julli ci fajar xoolal itte boo waxee mu ne ca sawaay bu vacances jotee bu fi kenn toog seen bàyyi dañ ma lay jox. te fii dëkk bii du dëkk bu ñuy xaritoo. génn leen dëkk bi ba ñu ko sëriñ bi di wax. ay xale lañ dañu yaakaaroon ne dafa am kum joteel ci dëkk bi nag te ñun la doon rawale. ndax te Medina ne ma man zaara wa yar googu nag ñun moom lañ gis ci ay doomam. soo ñëwee Medina Baye da ngay yaakaar ne Cheikh Mouhamad Nazir amu fi set amu fi doom. ndax ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon ci li seen Baye nekkoon. mooy lan euh, euh, fal iqtidaa u xas yi الشيخ محمد نزير روي كاتلون اذا صار خير الناس سرت وراء الشيخ محمد نزير امت لين لو مسا بيرال بوبام ديكو ديف لودو لي باي ديفون تي لاي جار بوبي مي ген ادونا لي باي دون ديف ريك لا ديف با ادونا موتاخ ماني بو باي واخيني اذا صار خير الناس bu gën gi mbindeef doxee ma topp ko mm-hmm. ma ne ko loolu du karaama mm-hmm. loolu bàyyi dafay won ne damaa amoon kilifa mm-hmm. loolu rek la bëgg woon tali su yeneen taxee dox du karaama pour man dama gis ne bàyyi da doon woon gars yi ne man damaa am kilifa sëriñ bi tamit noonu la meloon li bàyyi doon solo ni bàyyi doon yaree ni bàyyi jege woon taalibe bi ni bàyyi doon doon sonne ci taalibe yi te sëriñ bi mosut jublu lu dul li ko bàyyi defoon sëriñ bi jikkoom moo doon moo doon jikko yonent bi mhm. mooy mhm. sëriñ bi xaalam mooy dëggu mhm. mooy Cheikh Tidiane la doon dund waaye mahabbatoom ni bàyyi bëggee yonent bi moom noonu la bëggee woon Cheikh Ibrahima nga gis te kon jikko bi la wasu jikkoom yëpp alquran la woon waaye xaalam siqoog mahabba moo des mooy dëggu gi gém dëgg woon loolu xaalu Cheikh Tidiane la waaye mahabba bi mooy bëgg gi bàyyi bëgg yonant bi moom loolu la bëggoon Cheikh Ibrahima Niass wallaahi loolu ku mu yar mm-hmm. xam nga ne sëriñ bi dafa bëggoon bàyyi bëgg bàyyi googu yëpp daf ko wàll mm-hmm. moo tax nag kon buñ ñu gisee mm-hmm. yaakaar ne sori nañ ñun barab mënuñoo soriloo sëriñ bi xam-xam mu ñu noo sëriloo sëriñ bi alal mu ñu noo sëriloo sëriñ bi amul dara lu ñuy am te nekkul ni sëriñ bee ñu ko njëkk a jox kon suñ ko jëlu delloo si ko fañ koy def moo ñu ko ba mhm. barke bàyyi mhm. ñun sori wuñ ko de mhm. sori wuñ ko de yéen a ngi fii ñu nga fële parce que njaboot gee yaatu waaye ba tey ñun ñu ngi ci xaalam at bu jot ñëw ba néew ma <laughs> ñëw gi xam nga xam nga li wax sëriñ bi nee naa ko ñëw gii fuñ taxaw baax na fuñ toog baax na ñun ba ñëw bañ daan ñëw Medina blouson lañ doon sol liggéey ba ñëpp ñibbi ñu takk baa si ñibbiwaat. musu ñoo dem tay ba sol xaftaan. mën nañ fa jiitu une semaine. Mm-hmm. di liggéey nit ñi ñibbi tay ba trois jours ñu desaatu di liggéey. Mm-hmm. ñun loolu lañ mës a xam ci sëriñ bi. Mm-hmm. ñun dañoo gisoon ne lu sëriñ bi nekk ñu nekk ci mooy barke bi pas sax jàng. dama gisoon li jëm kii dafa am ndigal. Mm-hmm. ñun bu nekkee ci nekk nañu yàlla barkeel mm-hmm. mm-hmm. ñun tey jàngoo ñu dëgg la jàngoo ñu ay diplôme yu tax ñuy wax. wér duñu ay baat yu tax. ñu mel niñ mel. lu dul. dafa am waaw yu waaw mu ngi noonu ànd ak waliyu ak barkeb waliyu yàlla. Uh-huh. wallaahi moo ne ci ñun ba tey. dem na tey ba bu ñu nee Cheikh euh, Cheikh Aziz Cheikh Mouhamadul waaw parce que ñun sëriñ bi daf ne bëri ñu koy xaar mu dem ñu wéet. ñu wéet xamul fuñ jëm jaaxle wallaay te jamono boobu kenn xamul lu mu doon waaw kenn xamul ñu nekk ci jalaal yu métti mm. yu métti baaba fekk moo fa ne ma jeex di ma fekk police sëriñ bi nga koy seede sant te muy sama nijaay mm. parce que yaayu baaba mm. ñu xamuñ ko moom seen rakk bu jigéen ami saar moo jur sama yaay yaa asu saar seen rakk bu jigéen bi gën a ndaw ami saar moo jur sama yaay kon sama nijaay la sama baay la. dégg nga waa ji waaye ba tey. xaalu Serigne Beck xaal xaalu Cheikh Mouhamed Aziz mm. nii. amul benn mm. soxlawuñ lu dul. Mm. as sidqu wal mahabba bugg yàlla à part loolu siquñoo keneen leneen ma xam ne man bu ma amul woon ku dut moom bu ma gisul woon sëriñ bi su ma gisul woon ab ku mel ni ba banaa ko bu yàgg parce que am na fu ñu ma formé ba pare. am na lu ñu ma woon ba pare te woon lu ñu ma alal. dañoo woon yàlla juboo wow kong sëriñ bi xam na ca Cheikh Omar ngi nii. ñun fu ñu mën a nekk kenn mënuñoo woon lu ñu jox. ndax dañoo gis. teel a am information ci faydu bi. te li gën a garaaw sëriñ bi mooy. taalibe yi mën nga kaa xamal. yar ko ci faydu bi te joxoo ko information mm-hmm. sëriñ bi information lay njëkkee keew mm-hmm. naka ngay jëriñoo mm-hmm. ci baay naka ngay dundee Medina Baay naka ngay dundee ci faydu bi loolu lay njëkkee keew ba pare ngeen doog a dem ci ay tarbe yaag ay lu kenn xamul moo tax euh, li ma bëgg a wax munu fi munuñ ko wax waaye ñaar rek moom laa wu xam ne ñu ci ciy sant yàlla. Mm-hmm. tey ñu koy sàmm. Mm-hmm. ba tey ñu ngi ciy teg suñu tànk. Mm-hmm. isal kiraamu isaama aysaru. dakaru man kaane yaulufuhum fi manzilil xaachini. tey barab bi même bu fi mudir sosul woon dara. ñun war nañ fii ñëw. beesal suñu kóllëre fàttaliku. coono sëriñ bi ci ñun. sëriñ bi xaalis sax moo ñu ko doon jox. bu vacance jotoon ku ne moo lay wax jox la paas. bu dee ñun di dem Dakar daf ñaa ñu xaar ñu dugal ñu si otoom ñu ku ne mu indi la sa kër. bu bourse jotee moo lay jox xaalis. Mhm. wutal la passeport. Mhm. taxawu la te xamul sax sa yaay. Mhm. am na ñoo xam ne xamul sax seen papa. danaan ana ko dëkk Tëngéej ana ko dëkk Dakar ak fàtte na sax ku la jur. waxtu wu jot rek. moom mu ngi jaamu yàlla. dégg nga mu ngi liggéey Cheikh Ibrahima Niass. ci moom. may fàttali ko bokk na ci li mu mujjee wax. ba mooy wax loolu gëw ma ko de. mooy ba muy wax naan su ma deewee ëllëg. dégg nga. yenni ñii gisuma ci kenn kuy tarbiya nit ñi di yéegee nit ci xadara yàlla bi di dund li may dund kon perte naa hmm. te bu ma dajeeg bàyyi xaw ma lu ma koy wax hmm. moo tax bu ma fàttalikoo man sama xaal li may dund dama naan aw ma lu ma gën a neex hmm. lu dul liggéeyal cheikh ibrahim yes man soxlawu ma leneen bugguma leneen luñ ma dégg rek damay gunge ji waaye man man ci faytu bi lu ñëw nangu nañ léppam la ñuy parce que mënuñoo am lu ko gën moo tax sëriñ bu fekkee wax naa tuuti. ci li ñu xam. macha allah euh, shukran Cheikh Abdoul euh, euh, wax dëgg yàlla kontaan nañu trop. ndax li nga xam ne moom ngay wax. moom ngay dundee. ndax ñëw nañ Dakar fekk la fa. gis nañ wàccuwaay bi nga xam ne moom nga ñu wàccee ko déggoon ne motuñ ko sax waaye yaa ngi xool Cheikh Mouhamed Nadir ci ñun naka noonu tamit Cheikh Omar Diop Cheikh Abdoulaye Moudir dégg nga daf daan ñu ngi mel ni dem foofu noonu gis nañ wàccuwaay bi nga xam ne moom la ñu wàccuwaay njaboot gi kon kontaan nañ kon yan kàddu moom ngeen di dénkaane xam naa ne li nga li nga leen ci Cheikh Nadir <laughs> loolu xam nga lan laa ci bëgg sax <laughs> bu ñëwatee ñu am benn jil sa bopp xam nga loolu dina am sax loolu dina am allah ñëwee incha allah ñu gën a yaatal yëpp nga xam ne matuwaay yeeg jumtuwaay yëpp dinañ ñu ñu ñu def loolu incha allah danañ danañ seddaal naka la ñu defee nga xam ne affaire bi dina gën a liggéey waaw bi def fii waaw waaw incha allah loolu mën na alhamdulilah loolu ci baax dégg nañ eh, kaddu yi Cheikh Aziz wax xam-xam bi fi ball mm-hmm. ak li mu fi génnee lépp ci wàllu kalimaat eh, yi am solo yi mm-hmm. ndax lii lañ doon xaar ci ku Cheikh Nazir Yar mm-hmm. ko li ma wax léegi rek ku ko xool déglu ko rek da xam ne ci meññeet Cheikh Nazir la. te loolu mooy li am solo. li ñuy doy sëriñ. Mm. mooy bu fi jógee. Mm. ñu gis ay jeexitam ak mm. ay feeñuwaayam. te loolu yàlla def na ko ci macha allah ci moom. Eh, kontaan nañ bu baax ci kàddu yi mu fi jël. Eh, Cheikh Nazir moom moo mel noonu. yaram macha allah dafa am barke. Cheikh Nazir képp koo xam ne defar na la ba pare ci yow. rek ñi dañuy xam ne moom moo la defar. maa ngi fàttaliku eh, wax yi yu ñu daan wax fii ci Neema. yoo ma la wax a nga góorgóorlu. ndax damaa bëgg soo fi jógee. boo demee ñu xam ne man maa leen ci man nga jógee xam nga saa waay waxam boobu. ndeysaan dafa ko gëmoon dafa gëmoon ne moom comme defar rek danga war a baax ndeysaan waaw te lii Cheikh Aziz wax léegi wax bu am solo la wax bu daw yaram mu ci biir wax ji te mi Cheikh na si génn àddina wax bu daw yaram ci diggante wax bu gàtt boo xam ne am na yu ma ci déggee yu xóot yoo xam ne ku mel ne Cheikh euh, Mouhamadul Amin nga xam ne euh, mooy wakkilu daat nga xam ne euh, mooy ñaareelu xalifa bàyyi ci Dakar nga xam ne moo uuf mbooleem njabootu bàyyi gi Dakar taxawaay bi am ci moom ñun dara umpuñu ci ñun ñoo bokk ak moom nekk ak moom Dakar mu nekk koo xam ne Cheikh Aziz amoon na ay guddi yoo xam ne ku mel ni baaba soxla woon na ko te baaba ba muy xam nga baaba borom baatin la mhm. waaye Cheikh Aziz woowu ko moo xam ne njabootam nga fële mhm. gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy bëgg a lottal te war nañ ko dimbale moom moo ñëw ko ci indi ko téye ko te xam nga ne baaba mooy mudir mhm. mudir mooy baaba dëgg dëgg amul uti ndax ñëbat mhm. yëpp ñëbatu bàyyi la taalibe taalibe bàyyi la mhm. loolu moo boole baaba ak Cheikh euh, Aziz kon xam ne ci mbokkoo la commencé waaye waaye fi mu fi mu fi rek euh, euh, diggante Cheikh Nazir la ak baaba loolu diggante bu rafet la boo xam ne continuité continuité la loolu nag bunt bu bunt bu yaatu moo fa ubbeeku ci kóllëre goo xam ne liggéey bu yaatu moo fa am. <laughs> tey boo demee Gunaas tey taalibe yi xale yi fa nekk. lay lay ci sant yàlla di ci kontaan. Hmm. ndax moom xam na jamono bi muy nekk ci geeram bu métti boobu ci hmm. Gunaas. Hmm. daan dama fekk ginnaaw raay ma ne ci ñu nekk ci jaayante di rayante. kon tey bu yàlla defee lii. du def lu du sant yàlla. ni mu ko waxee rek. jotaay yu mel nii dafa war a am. Mhm. ci euh, neema fi. Mhm. ñu wax ci sëriñ bi liggéeyam. Mhm. Cheikh Nazir kenn gënu koo rëy. kenn gënu koo yaatu. àdduna yëpp xam nañ ko. kon nag ñu ngi sant yàlla bu tey bu baax. di ñaan yàlla kuréel ko kuréel googu yàlla gën ko saxal. a gën ko dëgëral. macha allah jërëjëf euh, Cheikh Omar. xam naa ne waxtu bi xooj nañu. Euh, Cheikh Aziz. waaw yooyu tamit ñu ngi lay jërëjëfal bu baax. ci kàddu yi nga xam ne moom nga fi gaaral. Mhm. yow tamit lan ngay tàggoo macha allah. waaw sama sama xitaam sama ñaar rek lay waxaat mooy. Euh, mooy li Ibn Khaldun wax. Mhm. man ta arraxali sax si. boo ko toppatooyee. mu tundal la. Mhm. sa kanta bésuwul yàlla bu yem ni Cheikh Mouhamed Nazir. bi ma ciy tegaat. moy li Cheikh Tidiane wax moy li ma wax ne serigne bi dundal nañu te Cheikh Tidiane moo ñu wax mo wax ne de nga wa iza safalaka min zamanika wahid fa huwa al murad ayna zaaka al wahid ñun nak sun wahid gogo moy Cheikh mohammed Nazir moy dox ba nit laabal la sa jamono moy sa cause nek kala laabal sa jamono moy ki la xamal yàlla ndax jamono du lab ci barab jamono ci yek yek lay laabee te lolou deug deug serigne bee ko déclencher ci motax kon dellu ci waat rek bés bii mhm. mooy manta arraxali shaxsin mhm. faqat ahyaaw mhm. te tey yéen a ngi koy jëmmal te dama leen di fàttaliku ñoom ñii bi ñuy ñëw maa ngi koy fàttaliku bi ngeen di ñëw ñu leen di indi Medina man maa ngi kër ga maa ngi koy fàttaliku moo tax bés bu ma fu ma leen gis rek dama naa ah, ñoom ñoo ñu uutu fii. te ñu ngi leen di sant muy Xasan ak Ousseyn ma xam ay kilifa te dakaar ga ñu nekk Sénégal ga ñu nekk yéen a ngi liggéey ci dégg nga. Mm-hmm. neema man dama koy wax Cheikh Nazir. Mm-hmm. Dakar dama ne ko. Hassan ak Hussein mm-hmm. war nañoo xam ci liñ nekk mm-hmm. ñun ñëpp ñu leen di jàppale parce que la mm-hmm. def neema di woon adduna bi neema di def direct neema di dundal xam-xam neema man fu ma gisee neema fàttali ko rek ñoom ñaar la ma ne ko kon ñoom dañu woon leen dañ leen war di jege di xam ñoom ci li ñu nekk ah Cheikh Omar ñu leen di jàppale ci liñ nekk ñooñu fi nekkal mënuñu fee nekk kon nag ñoom yàlla leen yàlla wax dëgg yàlla nit ku nit ku baax la euh, bu yàggut ci xool bu rëy programme bu rëy bi rëy rëy rëy rëy amul pour tudd ñu amul complexe pour tudd Cheikh Mouhamed Nazir fu mu jaar ak moom loolu moo doon loo xam ne lu rëcc ñun loolu su fekkee ne am na lu may tegtal tegtal wu dara na lu dul ne mm-hmm. ki mu bëgg mooy Cheikh Mouhamed Nazir kon loolu tamit ñu ngi lay wax ne lu rëy la ci ñun ndax léego-léeg nit yàlla dana ko may nangam mu dem mbooloo nii mu am ñum def ci suuf waaye loolu moom wax dëgg yàlla yàlla boolewul ko ci loolu loolu tamit kontaan nañ ci trop suñ suñ suñ suñ suñ xol daal kontaan na ci macha allah ah kontaan nañ wax dëgg yàlla lu ngeen guux pour wax ko wax ci Cheikh Mouhamed Nazir wax dëgg yàlla xajut fii rek wax dëgg yàlla ñu ngi nekk ay yeneen nit yoo xam ne mooy Ah, danañ ko gën a yaatal danañ ko gën a yaatal ñu seet naka la ñuy def ba nga xam ne hmm. euh, jamono ju nekk rek nit ñi danañ dégg kan mooy Cheikh Mouhamed Nazir ndax kooku kenn waru koo fàtte hmm. dunda mag dégg nga jëriñ la hmm. jàngale mag itte mag dégg nga xam-xam ak ñàkk caaxaan ak nangam lu nekk rek jamono ju nekk rek nit ñu war nañ ci wax waaw incha allah kon maa ngi leen di gërëm di leen jégalu bu baax sonn ngeen lool waaye nag ci jot bi nga xam ne moom ngeen ma may asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu la